audio yi tamit boo gisee ñu si sénégalais yi gën a ŋàññ yëpp uh-huh. mooy ñi ñu wax ne mooy xaritu Baba Thiam awa Baba Thiam muy Sala Sow ñu ne audio yi war a ko woon génnee war a woon wax li mu wax uh-huh. audio yooyu ba nga ko déggee mbay noo ko jàngatee oh, muy nit ku baax koo xamante ne mais tamit xam naa ni dañ dafa jaxas dañ koo jaxase ak awa baaba parce que man fi mu nekk nii sax dañ koo jaxase parce que nan la mënee ñëwee si xewam journaliste si sax jëluñu ay teraangaam kan Sala Sow yéen journaliste yëpp laay laay laay balaamee a bon journaliste yi bon nan la Sala Sow ay teraanga indi ko si kii ngeen bañ koo jël fësal ko loolu loolu léegi mën na koo métti. te mbay li jaaxal sénégalais mooy Sala Sow naka la mën a ñëwee ci anytime bi après ay yeneen audio génnaat ñu ne Sala moo ko moo ko moo ko. du Sala Sala audio yi musul audio barki Rasulaay Sala du audio Sala du audio Sala audio yam du audio. ay waay ay waay man ñi liggéeyu ñu rek mais ni tere ngi keroog tere xaw ma micro fi ñuy dugal audio yi nu mu tudd. dictaphonie. non ñooy liggéeyuñu. Mm. audio yëpp incha allah dinañ xool audio yi fu dul sala sa su dee su sala ñu ñu ñu ñu def liggéey bu leen war parce que sala kilifa la sala jigéen bu baax. sa nga xamante ne julli jàpp julli jàpp julli màqa juma jàpp julli màqa juma. mais mbay nan lay waxee wax ju ñaaw. mbay audio yi boo déggee liñ ci wax. mais du sala waa yow du sala. audio yi si boppam du sala audio yi du sala nañ bàyyi di monter ay vidéo euh, euh, euh, di monter audio yi si si boppam su nekkee man na xam la laay wax gaaw leen wax ji gaaw a fay su fayul dina ëpp loxo. gaaw leen wax ji gaaw fay parce que lii lii du waxu caaxaan lii du waxu ay ay ay ay kasaw kasaw sala ñaata nañ wax yu baax yi muy def sala ñaata ñaar ña ñetti camion xar la wàccee Dakar bi suñ nee gannaaw si wala tabax si. ñi ànd kenn génn di yàqante kenn. parce que moo ñoo ko ñoo def li ñu ko war su ko si bari ko day sala <laughs> sala du bàyyi eh, eh, eh, kii si ginnaaw fan de sala rokki mu rokkaane ku ko def ku ko. ko xoolal ku ko wattu mu mu géex la comprendre te sax wax ji mooy jeex force wax ji si boppam mooy jeex am sala indil sala am sala indil sala mooy jeex jabaru kilifala la ah on s'arrête jabaru kilifa la kilifa jabaru fi mu nekk nii sala mi ngi màkka sala fi mu nekk nii mi ngi màkka nañ ko ñaanal ah mi ngi màqa mi ngi jàkkaarloo kaaba gi te xam naa ne barki Serigne Touba ki si waxul loo wax su la ñaanalee da ngay ñibbi salaa ngi màqa. mais mbay est-ce que jàppoo ne audio yi dafa génn sala sala di rëccu li nga xam te ni def na ko moo tax mu génnaat di. déedéet sala yàq na màqa sala sala weer at bi 6 mois yoo yoo gis sala 6 yi mi ngi mi ngi màqa 6 mois yëpp 6 mois yi mi ngi màqa yeneen 6 yi mi ngi Sénégal. maanaam da koy da koy da koy euh, six mois yi mi ngi màq six mois yi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi Sénégal ndax liggéey ñàkk jëriñu sala ñaata jumaa la tabax fi mu nii mi ngi si huitième jumaa yoo xamante ne pareegul mi ngi koy tabax kooku dayee caaxaan huit jumaa yoo xamante ne sala nga koy tabax sala mi ngi si jumaa yi ah sala xamul lu xamul jéeg xamul sala yoonam nekkul si nat sala du nat xamul affaire toogaay jekk ah amul xamul wax ju sew sala xamul wax ju sew sala dimbali nit la xam dimbali kii kii dimbali kii kii dimbali kee kii dimbali kii sala loolu la xam xam xamul naa fekk sala du naa fekk comprendre nga sala du wax lu bon te audio yi du moom nañ delloo seen xel ci yàlla Sénégal nañ wax ju baax baax yi nañ préparé màggal gi màggal gi fi mu nekk nii sala mi ngi waaj a ñëw ah yóbbu di joxe paasu màggal tam kii bi a ngi ñëw eh, eh, eh, gàmmu gaa ngi ñëw sala mi ngi waajal joxe paasu màgga gàmmu gi comprendre nga ay nag waaye sala li muy def si yu baax waaye duñ ko génnee di ko wax. mais ñu génn sala la ñuy attaqué lan moo. lan mooy ma ke idi wax jee jeex laa la wax wax ji ci boppam mooy jeex si sala sala si boppam wax cee jeex parce que man mënumaa gis ngay def lu baax si diine di julli jullee la julli màqa. woor julli màkka woor jàkka juma aha ngeen bëgg koo ngeen bëgg koo yàq Sénégal ñoo bon dëgg dëgg dëgg Sénégal ñoo bon dëgg dëgg Sénégal xamante ne di Sénégal ñoo bon wala Sénégal ñoo bon nag mi màq nii Sénégal ngi màq nii di julli jàkkaarloo kaaba gi di wax di di jaamu yàlla ngeen bëgg koo yàq di à ay vidéo di ay audio naan ay audio yi mën a fet Sénégal dañoo mën a fet Sénégal tii maa Sénégal tii tii tii Sénégal baaxul quoi Sénégal baaxul billaay Sénégal baaxul Sénégal baaxul non di xeebaate di fenalaate di sosalaate si sala sala baax ah gën ñeent setti juma mi ngi koy taxaw mi ngi koy tabax tabax koñ bu nekk mi ngi fay tabaxal ay juma. est-ce que jàppoo euh, wax yëpp pour yàq mariage Alioune Seck la ak ak ak ak kii moom Salah yoonam nekku si affaire mariage de moom yoonam nekku si de nit ñee ko nar a yàqal di ko tuutal nit ñee ko nar a yàqal tuutal. mais sala doxewul noonu sala dafa baax barki alxuraanul karim sala sala max julli julli la war du wax lu bon ñiy wax yii nañ bàyyi yi ñuy def wala su ma su suñ ci gaa yi duggee léegi wax ci jeex wax ji léegi mu jeex barki laay wax ci léegi mu jeex sala ku baax la léegi mu jeex wax ji léegi mu jeex audio yi du moom nañ bàyyi fabriqué ay audio naan kii moo ko wax kii moo wax lii sala dafa tal tal audio audio kan mooy ñan nga jàpp ne ñoo bëgg a ñoo bëgg a yàq sala fu mu toll nii. gaa yee ko bëgg a yàq Sénégal ku moo leen gën a avancé jumaa yi muy tabax moo leen metti jumaa yi muy tabax nii nii moo leen metti sept jumaa yoo xamante ne pareegul ah sept jumaa yor xaalisam di dem six mois yoo xamante ne Màkka la koy def six mois yoo xamante Sénégal la koy def màggal gaa ngi ñëw si waxu màggal gi la nekk nii nii nii nii nii nii nii ngeen koy waxal ay ay ay ay ay kan kan ma dama xam aw baaba caam sax. xaw ma ko kookan la. man xam naa Alioune Seck ak ak ak ak ak kim nañ ji mooy jabaram xaw ma ko mais man sala laa xam sala du wax lu bon sala du wax ku bon sala ku ko xosi mu kuur la suñ ko tooñee du du du suñ ko tooñee su ñaxee fayda du Sénégal i faut nga kii ku ko tooñ na na na duma na duma na yor yat di duma na yor yat di duma c'est fond c'est fin na yor yat di duma kon da nga jàpp ni Awa Baba Thiam mooy problème xaw ma problème xaw ma kooku de. sala laa xam. mbay lan ngay tëjee. fi mu nekk nii guy gi xam ne laaj eh, xaw eh, eh, ah? wax ji na jeex parvenir naa mu xaw ma woon wax ji fi mu nekk nii na jeex wax ji na jeex wax ji na jeex. maa ngi leen gërëm wax ji na jeex sala incha allah balaa màggal dina ñëw te incha allah paas màggal yi incha allah dina ko séddale waaw ku si ku amul woon bi paas màggal yi allah sala yàgg day yàgg def lu baax. tab seen waaw tab tab nag maa ngi koy ah, maa leen di gërëm sama sponsor la. ñu baax lañ tab tab seen waaw ñu ngi joxe ay paasu màggal ñoom it di def ci safar yi waaw waaw